nag dañu koy door ak yéen kaay groupe des média dafa ñëw ci li doon waxtaanee sànq wàllu politique ak waa APR yi nga xam ne fu mu nekk nii njaayum carte gu ma sëkk si la ñu nekk njaayum carte gu nga xam ne nii bëgg nañu yokk seen limu militant militant plutôt euh, fu ci nekk daal président Macky Sall xamal na leen ne kon fu mu nekk nii wàcc leen ci terrain bi dem leen ci terrain bi dem euh, jaay carte yi euh, si seen i militant yokk lim gi en tout cas yéen bi nee na nag loolee dafay firndee ne kon président Sall tegu na ci raayu raay bi nga xam ne deux mille vingt quatre la jëm ngir samp ndëndëm maanaam troisième mandat yéenekaay bi foofu la génnee ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy yokkuteeg euh, njëkk yi nan la commerçant yi maanaam jaaykat yi ak président Macky Sall na ñuy naxantee naxante bi mooy njëkk yi euh, prix yi nga xam ne nee nañu moom la ñu visé jëm ci ceeb bi diwlin bi suukar seexlu ni xeetoo nee nañu moom la ñu wàññi ndekete yoo bu ñu wàññee njëkk yooyee yeneen njëkk yokku na kon dañu somp ci fi euh, taf ci fële Euh, yéenekaay bi ne nag fu mu nekk nii naxante boobu la askan wi di dund jëm ci euh, yokkute geex wàññite gi nga xam ne tey ji la ñu ko war a appliqué vingt 2024 keneen ku samp ndëndëm gannaaw Bougane Gueye Dany moo di président Malick gàkku démb la woote def rassemblement wam xaw ma ndax am na import ak export xam lu mu ci manti doon mais mbooloo ma feesoon na dell moom président Malick gàkku samp na ndëndëm nee na pale la gis fu mu nekk nii te gën gënu koo mérité pale ba ndax yàgg na samp ndëndëm ñu koy daaneel fu mu nekk nii nag ndëndëm bi samp na ko te nee na 2024 la jëm moom président Malick Gakou démb la woote congrès d'investiture exploitation or bi nga xam ne moom la ñu am fii ci réewum Sénégal 300 milliards yu nga xam ne nii yaakaar naa ne askan wi waroon nañ see mën a gis seen seen bopp rawatina ñu dëkk foofee nga xam ne moo di Kédougou sa war wala euh, Saraya looloo tax forum civil gis ne jot na ñooñu askan wa nga xam ne foofu la or ba nekk ñu gis seen bopp ndax nag foofu la ndóol gi ëppee Euh, foofu la ñàkkum ndox mi ëppee foofu la ñàkkum courant bi ëppee te foofu la or bi nekk fa la ñu koy tubbee di ko yóbbu te ñoom gisuñu seen bopp looloo tax waa forum civil bind bataaxal ci boppam euh, jox ko njiitu réew mi di sàkku nag mu def ci ay pexe jamono joojee euh, waa ànd gësëm rawatina ñi liggéey ci collectivité territoriale yi grève bu 96 heures la ñu woote dans maanaam ñeenti fat yu nga xam ne dañuy banque seen yoxo ëllëg lañu ñu koy tàmbali donc mardi mercredi jeudi ba waa ànd gësëm la peut-être côté santé bi la est-ce que am na ñu déggoon ndax collectivité territoriale bi si la ñu bokkoon am déet lu mu ci manti doom ñeen ñee nañu dañuy delloowaat buum sa mboy mboy sampaat nañu seen seen grève bi de grève la ñu sampaat fu mu nekk nii ñoom collectivité territoriale te nee nañu nag. ànd euh, gësëm ànd daal day am sincère ba ci nee na bu fekkee na nguur gi dafay yaakaar ne ñoom Sidiya Ndiaye nee na bu fekkee nguur gi service minimum bi ñuy wax fa la tànkam foog ne service baa ngi dox. bu mu ko bett ëllëg bu ñu waxee service minimum sax dootul amati maanaam tey nga am sa néew bëgg koo suul hmm. permis bi ñu la war a jox autorisation bi këyit bi nga war a am mairie ba duñ la ko jox hmm. nga am sa sëy boo war a takk sa mairie ba am këyit urgence bu jàmm bee boo nga xam ne doo am këyit sa doom juddu nga bër ko déclaré bee boo nga xam ne kenn du ko déclaré te loolu nag uwa la bee boo nañ ci bàyyi xel am na këyit xam ne nécessité la xale bi war a def examen wala koo xam ne nii bu dafa war a def bu daar daar daar soxla na benn extrait de naissance bee nga xam ne doo ko am donc service minimum bi foofu la Euh, ñoom nag nee na dàquñu benn yoon service minimum boobee sax ñu daal di si banque seen yoxo Sidi Ndiaye Ndiaye moo ko daan xaafoo Vox Populi dafa ñëw ci président Macky Sall mobilisation la woote ndax nee na 2024 euh, la ñu jëm mobilisation boobee nag nee na militants yi responsable politique yi xam naa bu ñu demee ba président di wàcc dafa ça veut dire que kon responsable yi nekk ci gox yeeg gox seen liggéey daf leen ko donc moom ci boppam moo wàcc def renfort nee leen dem leen fekk ji askan wi dem leen ci base bi waxtaan ak ñoom jaay leen carte président Macky Sall loolu la la wax. suñu gayndey ñang sa dowa jël nañu vol spécial ni ki démb il n'y aura de troisième mandat au Sénégal loolu ko ko xamle moo di Malick Gakou nee na président Macky Sall bu fekkee dangay nelaw yeewu ndax bu fekkee troisième mandat nga bëgg doo ko am fii ci réewum Sénégal 2024 man la maa moomee moom Malick Gakou loolu la gis ay Aïdara nag nee na euh, député maire bu Guédiawaye mille vingt 2024 profil bu baax bi Malick Gakou la ndax Ahmed Aïdara moom mooy directeur campagne am mu ngoog ñu jàll ci grand place Euh, grand place dafa ñëw ci euh, président Macky Sall stratégie bi nga xam ne moom la moom la teg. Euh, moom la ñu ah, ñu laaj fu mu nekk nii yeewi am na ñaata candidat pour le moment. yeewi am na Ousmane Sonko am na kii Malick Gakou mi nga xam ne moom annoncé na candidature am. am na Khalifa Sall. ak kanati Habib Sy ma ndax xale yaa ngi yëngal est-ce que candidat la wala. <laughs> Déthié Fall nag. Déthié faal ñu ngi xaar ah, parce que mi ngi def tournée. moom it nee na mi ngi def dafa écouté tournée woom keroog si kii bi dafay delluwaat def tournée buy def tournée def ko pour keneen pour boppam la koy def. Ah, donc moom candidat la. donc lu mu gàtt gàtt am nga fa trois wala quatre candi candidats bu dee intercoalition bi. Euh, ka nekk Dowa. Euh, Karim. candidat la moom it candidat la. bu fekkee intercoalition donc ñoom ñëpp bu ñu nekkee candidat dina am possibilité seetaan mondial ni mu ko neexee waaw moom moom dana ko seetaan xam naa day jubal foofu demul mondial moom soxlul visa moom day jubal directement Doha rek est-ce que dalalul waa Sénégal man na nekk nag et puis ah. bu ñuy ñëw fexeel ba da nga ñëwaale nag yow bokkal si délégation bi ñibbi si <laughs> waaw kenn du la laal fekk ñu àndaale coupe bi kenn du la laal boobu mbégte lay doon alors ëllëgu yeewi askan wi nag kon nag ñu bëri loolu la ñuy laaj xëñ na nag après bu ñu demee ba deuxième tour bu fekkee am na ñoom kii génn ñoom ñëpp ñu defaraat seen seen yeewi askan wi dajaloo waat ci ci ci rond point ba Euh, source a ah, Malick Gakou candidat la présidentielle 2024 waa asolem montagne dañ leen waroon yëkkati ay kër la yu bari yu nga xam ne dañ leen waroon yëkkati euh, euh, ndax nag jot nañu ordonnance bu nga xam ne ñoom ci boppam moo tax ñu waroon yëkkati famille Ndoye ba Bada Thiam ñoom nee nañu nag nañu exécuté loolu noonu lañ leen yëkkati xëy na ñoo moom suuf si waaye nag colonel Papa Sabouré Ndiaye bu deeskos nee na moom moo jël décision ci boppam ne kenn du leen yëkkati day may ñoo ñu nga xam ne ñoo fa dëkk ñu andi ay këyit ba pare ñu xool pesé ndax ñoo moom foofu wala moomuñu ko moom nee na colonel moo jël décision boobu ci moom waaw parce que mënuñu ñëw rek famille ñoo xam ne fa la ñu dëkk yàgg lool a buub loolu ah. sax colonel ah. vraiment colonel vraiment ñu ngi lay ñu ngi lay colonel ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal nee na nag mënul ñëw rek ñoo xam ne fa la ñu juddoo màggee foog ñoo ni leen tëb leen quoi ay nit andi seen kayit ñu ñoom ñoo ko moom peut-être ñooñu am na fuñ fuñ ko teg mais nañu may ñee tamit ñu andi seen i këyit ñu comparé dëkk gu metti gi ci doole dong lañ ko teg di ko daaneel loolu moo dul yoon ah. dangay ut beneen bu la kenn jëli ci loolu nay leer moom ci boppam décision boobu la jël ba tey la mu am takkale na ko ba tabax doo ko bàyyi tabaxam suuf saa ba tey ñëwaat na ci li nga xam ne mooy candidature président Macky Sall bi troisième bi le soleil dafa ñëw entrée en vigueur des nouveaux prix jëm ci denrée de consommation yi tey jii ci boppam lañu ko war a mën a appliquer waaye nag jaaykat yi ñoom nopp bu tëx bi la ñu joxe dégguñu ko nag parce que yenn yi fu mu nekk nee nañu du ñu changé mukk njëkk yi dinañ ko dégg de ñoom nopp bu bon bi daal lañ joxe dañ ko ko dégg de gis nga maam waaw ñëpp ci war a ànd askan wi presse ñëpp taxaw di dénoncer di boole ànd ak autorité yi bi yoon parce que suñu yëf la foog ñu jàngal suñu bopp yërmaanante suñu biir wax fa dëgg mais di ko teengal di ko teengal rek te ba pare di koppat di koppat te léegi bu ñu tey di gën a doy wax bu ñu la nee kilo cinq cent mu nekk 600 boo ko boolee. toq toq toq toq weccet yooyu. li ñu bëgg daay contre ñu leen ñun one est avec parce que ci peuple bi la ñu féetee. wax mais pour ñu ànd ak yéen da ngeen di ànd ak peuple bi. waaw am yërmande ci ñoom. ci peuple bi. lu ko mooy ñun duñu ànd ak yéen ah. nguur gi li mu jéem nañ ko jéemlee. parce que lépp mooy ne peuple bi dundam woyef. na mi ngi noonu bu ñu waxee yokk nañ du ñu xaar ne sama stock ba ma jëndoon dañuy xaar ba stock bi jeex ma doo ko yokk déedéet ci saa si du tikk otak lay nekk muy ba si transport bi bu ñu nekkoon yokk nañ paas yi si saa si la ñu koy mais bu ñu nee wàññi duñ ma sa wàññi mm-hmm. dañuy continuer noonu rek si jëg boobu dama ne la huit cent milliards yu ñuy jéggaane xaj nañ ci ñun waaw mm-hmm. ah, bu wax nga dëgg nag bitig yooyu ngay wax noonu solution la nañ ko jox sénégalais yi ndaw yu dem liggéey ci lu am solo la risque risque yi ak dérive yi nga xam ne moo am ci réseaux sociaux yi nguur gi bëgg ko euh, maîtriser Euh, loolee nag dérive yooyu mu bëgg mu dàkk yéen bi dikk na ci di euh, réew mi quotidien euh, ñu jàll ci Macky Sall lax njaayum carte gi ak la làqu sa ginnaaw yéen bi di l'observateur foofu la génne dikk wala sax libération dafa dem ba dikk nee ñu dikk nag dafa demantele benn labo bu nga xam ne day raxas commissaire Adrame Sarr waaw ñu koy bu baax waaw moom kon monsieur Adrame Sall sama mbokkum tëngee ji liggéeykat bu mag am solo lay def mm-hmm. trafic de dem ndekete benn labo bu nekk foofee sa Malika labo labo la taw ñoo ñoo ko doon raxas ñooy raxas koppar bu seet bu ñuul bi en tout cas deux suspects nga xam ne ni pris en flagrant délit benn quantité importante de billets noirs waaw ñu ngi noonu nag sa Malika ndekete fa lañ ko doon nettoyé xaw ma nag koppar boobu après moom doy na waar l'exclusif ba tey présidentielle de mille vingt quatre ah, yaa doon laaj Omar Dogo Omar Gueye investi Macky <laughs> mobilise mais ñi doon laajtee xaritu Yacine bi. Mm. Euh, Omar Gueye. Omar Gueye Omar Dogo Dogote. <laughs> doo bàyyi ma jaxase laax waa waa waa askan bi. <laughs> xam naa bëgg na la gis moom. ah du la gis. sa dur ma taxaw fi naan xaritu Yacine xaritu Yacine te am na photo boo xam ne bu ñu ko tegoon ci nga tey moo photo Malick Gakou boobu ñu leen tegoon ñoom ñaar. xam naa loolu si campagne eh, la woon de. xam naa si kat xam na dañuy dox dox dox ba da ngay poussière poussière mbooy bi bu nekkee mbooy da ngay poussière wax ba am laa si génn. en tout cas Omar Gueye nee nañu moom samp na président Macky Sall def na ko candidat wam sans table la maye deux mille cinq cent kit scolaire moom borom crème Pape bi Bitèye nee na engagement boobu la jël. laas quotidien bi ngay xam ne ne kon coach Cissé ak nag ay euh, joueur am ya mu tànn ña nga ca Doha fu mu nekk nii. Ah, waaw dem nañu fës kee ne waaw dem nañu déclaré nañu démb. wàllum or bi euh, gis nañu nag forum civil fu mu nekk. nii nee nañu mais Sadio Mané moom anam. Sadio Mané waaw ah, dina fa fekk xam na. déet mais du ñëw fii ñu mocc ko. ah du ñëw du ñu ko indil fii ñu mocc ko. bu ñu ko ñëwee rek bàyyi ko noonu xam nga nag bàyyi na xam naa danaan may tey te bu wóolu. non Sadio Mané bu mu dem Doha. te ñëwul fii ñu mocc ko ñoo xam ne dañ lay mocc sax à distance dañ koy natt rek. mais jeex na. ah mu delluwaat après ñoom bant bi la ñuy téye di mocc rek mu koy mocc. Hmm. waaw am na ñoo xam ne à distance dañuy mocc am na fi. ñoo fii si Sénégal gi fii. Ah, dañoo ay ci yàq bon Sénégal fii. da eh? gis ku damm du yor békkee duñ ko. wallaay Grèce bëy sax wala Grèce yeew wala lu mu ci manti doon dañ lay déglu. mocce la ko ba nga doxi sa soxla. am na fi de Sénégal gii na Sadio ñëw rek nañ ñu ko yebal rek avant muy dem forom civil rek yaatu ngi xool feneen lu may wax forom nee na en tout cas waa Saraya jot war nañu jot seen wàll ci koppar bi or ba nga xam ne moom la ñuy jëlee biti réew waa Saraya gis ñu seen bopp oor ba ñu jëlee ko sa Saraya sa Kédougou mm. sa Sabadola waa dëkk ba ci boppam dara nee nañ fa ñoom ñoo gën a ndóol ñetti doomi pend naar yi kenn mënu ko fa matale ndékk añ reer hmm. dëkk ba amul ndox amul courant wala nag bu ko fa amee it matewul askan wa sonn nañu te or ba fa la ne bi ji jeeg ji gën a bëgg yaasin li ngeen gën a bëgg yéen or ba fala ne te ñoom ci boppam dañ or bi dañuy romb nii rek ñu koy seen muy dem nii rek te amul dara lu luy dugg seen kees da leen di xeeñ rek mais du dara luy dugg seen seen seen seen gafa vingt 2024 GP grand parti moom nee na samp nañu Malick Gakou très bien participation coupe du monde sa Qatar pas d'engouement ah ñu amee engouement mayo 45 000 tamit. waaye yam mënuñu koo jënd 45 000 maye. on dit yow mi ma may blouson bi jërëjëf yaa tax man jënduma quarante mayu quarante cinq mille. ku la ko may foofu. on dit hmm. moom kooku moom njabootam yëpp njaboot Ablaye Wade la leen tuddee am na Ablaye Wade am na Sindiély Wade am na Karim Meïssa Wade moom doom yëpp njabootu Wade gi Alkali Massamba moom nag fidèle la. mu ngi dëkk fii euh, on dit après da may joxal Yacine benn mayu dégg benn blouson et puis waa plateau bi également. non mayu ay la wala mayu. blouson man mayoon rek. quarante cinq ah ay OG la. OG. Ah. ok on euh, mbokkum tëngeej. bu nga xam ne ni yàgg na def euh, euh, ci politique nag la daan la daan yëngu fu mu nekk ni pratiquement doxatul si si kii dafa am doomam bu koy andi doomam bu nekk ci kaw. Ah. moo koy moo ko moo ko andil. alors nee ko nag. non du wax fa dëgg neex yàlla. on dit andilal waa plateau bi ku si nekk sa maillot. ça <laughs> déraille à Thiès. mbirum faux euh, faux ci sa Thiès daal daanaka gendarmerie neuf cent millions euh, euros dollars yi nga xam ne jot nañu leen teg loxo Thiès Dakar. Ah, nouvelle ligne du trafic ah, Dakar nii yàlla baax na homme d'état une espèce donc en voie de disparition wax ngeen dëgg de homme d'état de. léegi nag direct waaye am na nag ay benn benn homme d'état yi fi nekk. Euh, Odia mi ngi tooj na El Hadj Ahmed Aïdara la andi mu tóoj président Malick Gakou euh, ànd ak moom 2024. mille vingt ah, directeur campagne. mooy directeur Malick Gakou moom El Hadj Ahmed Aïdara <laughs> député maire na Malick Gakou. Ah, Odia ni ni la def copain tey. waaw ah, ni mu def ni mu ko def danse na xoolal dàll yi. waaw dàll yi la ko may ko benn près du corps bu ndaw jël Malick nii aj ko si kaw. waaw et puis jàkkaarloo président Macky Sall. bisimilah rek muy distribué ay. alaaji euh, na yemale cër yi. Macky Sall noppi yi nii la koy def. waaw mu ñëw gis nga Ahmed mu defal ko. waaw tuñam yi nii tamit. Oja yow tamit xool nga jox ko bopp tool yi. wax kii voilà. il va de jeter les cartes du parti par la fenêtre. Euh, Macky Sall ah, la koy comme ça <laughs> lu mu def ñu critique. waaw ah, mooy yegg daa ni maa ngi daa weex Mali daa weex fii xam naa photo boobu la jël <laughs> photo boobu gis ay ca El Hadj si gën a pës waa forme civile bi am jaaxle lool ca Saraya la ñu fay exploité ci mbell te askan wi ci seen bopp tey la ñu gën a sonn du ndox du courant du euh, tawat faju dinañ ci dellu sat bis bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu jabet nekk te Sénégal am na ñeenti téeméeri junni nit yu woppi jabet ci atum 2022 bi daanaka xayma gi askan wi euh, téeméer boo ci jël ñetti tombal su lëf am nañu woppi jabet intersyndicalu agent collectivité territoriale yi maintenir nañu seen mot d'ordre de grève ba ñu entamé woon 72 heures maanaam ñeenti fan boo sàgganee sax nag fa ñu nar jëm moo di ni tous dootuñu ko def 15 16 17 18 yëpp dañuy banque seen loxo intersyndical ba ni grève boobee sax nag euh, kilifa yi am nañ ci part de responsabilité waaye bu fekkee dañuy continuer di leen tànk xam nu daañu ko gën a tengal Sidia Ndiaye di ngeen dégg kàddoom ci xibaar yi sport dinañ ci ànd ak bay maan Baye Mantemboub yéen